ay coono itam waaye ginnaaw tàggu na ci ay kilifaam ci digalul sëriñ Sidel Muxtaar di ñaan mu gën a yàgg te gën a wér ndigalul sëriñ Abbas Mbàkke mi nga xam ni mooy xalifa boroom Daaru Muxti ñu ñaan yàlla yàggal leen ñoom ñaari jëmm yooyu te seeni mébét yàlla yeggale ko te yeggale itam mébéti kilifa yi nga xam ni ñoom it dañoo ŋànk yu demee ni yooyu ñu téye ci ndigalul sëriñ Moustapha sa Jaxate mi nga xam ne mooy jëwriñu Daaru Muxti ak sëriñ Basiru Abdu Xuddoos mi nga xam ne moo yore kàddu gi ñii la sëriñ bi jóg ci seeni ndigal ginnaaw ba mu ci diisoog ñoom fas yéene fu way juróom wa daan tegub tànkam mu jéem ànd ak rakkam yii teg ko fa lii mu ci nammit mooy daf di mbir moo xam ni ñoom mboolem waa réew mi ak sax bitim réew bi nga xam ni yàlla ñëw naa ko dogalam ci sëriñ bi kenn ku ci nekk tegoo nga ci ay coono te itam am nga ci yëg-yëgi xol ba waaxu ba ñëw daaru moxti ñi ci ëpp kenn ku nekk am mébat bu rafet am yéene itam ci sëriñ bi doon wëllëre wala ngay taalibe ci kanamam ba mu jóge fi ngay mottali kollëre googu kon loola lañu bëggoon ñoom it seen wàlla ñu jël ko ci kenn ko ci ne ñu waaxu ba fi ñëw yow ba fi yow ñu xamal la ni la kat nun noog sëriñ bi noog yow rek noo bokk yam ci sëriñ bi li nga ci doon loolu lan ci doon tegoo nga ci ay coono kon nu nit war nañu cee tegoo ay coono ba ñëpp yëg ni kon sëriñ bi moom ñëpp a ko bokk loolu nag moo tax sëriñ bi ànd ak jabootuk sëriñ Cheikh Khady di ay doomam muy rakki sëriñ bi di ay sëtam muy seeni doom ñu ànd taalibe yi defe naa ni délégation bu rëy la lim nañ ko ay yoon yoon du jaar kon xëy na di jaaraat ci turu ku ne ndax ci ngoon rekk defe naa ni am na waxtaan wu ñu doon def ci rajo bi Eh, ñoom ñëpp seeni tur lim nañu ko eh, délégation bi li ci ëpp lim nañu seeni tur ñi nga xam ne ñooy taalibe yi ci ànd kon lii rek moo doon yoon wi su ko defee nag ñu dem dëkk yu bari ba yegg si fii ci kafrin tey sëriñ Abdoulaye wilaan mi nga xam ne mooy eh, jiite mairie bi nekkoon wala réew sëriñ bi lu jiitu muy nekk maire seen kóllëre jiitu waaye mu am taxawaay bu rëy ci sëriñ bi boo xam ne sëriñ bi ci boppam ràññe woon na ko ak njabootam ràññee ko kon moom it xam na àq ju toll ni bu ñuy toppatoo lu mel noonu moom ñu waaxu ñëw ba ci moom jox ko ci wàllam jox ci wàllu waa ndukkumaan sax gépp ci aw turam mu mel ni nag am na ci taxawaayu boppam boo xam ni mën mii di wax dañ ma ko waxloo waaye ñii fi teew ñëpp xam nañ ne taxaw na ci taxawaay boo xam ne ab taxawaay mosu koo féete kaw ci teeru sëriñ bi ak ñi mu àndal teral leen dalal leen waxuñu bala ay xéewal ak yooyu yëpp di ñëw waaye mu ubbil leen kanamam won leen ni leen ahlan wa sahlan wax ci sax wax ju daw yaram ndax waxoon na ma ci ngoon ni ma nanga ma waxal ci rajo bi ni gan gu ma mas a am am naa gan yu bari de ganale naa it ganale yu bari waaye gu ma mas a am goog tey gii man moo ma ci dàqal ndax tey day 4 avril ñuy feetu feetu réew mi bi mu moomee boppam yàlla dimbali ma ba gan ñii dugg ci sama loxo tey ñëw ci dëkk bi maag waa dëkk bi ak réew mi yépp nu séq ko waaye ñu ñëw wàcc ci man kon maag ñëpp a ko bokk muy xéewal goo xam ne ñëpp ci lañu bokk te mën nañ cee xéewlu waaye nag man am naa ci mbégte moo xam ne tey laa ko jëkk am kon it loolu dalay won ni nit bu jógee ñëw ci nit mu safoo ko safoo gu nii nag su ko defalul woon dara lu may may ko am ndox mu naan mu lal ko ak basak ni ko toogal fii mën nga fee dallu it mat na tiraanga waaye moom yëmut ci loolu tiraanga yaa ngi nii tey kenn ku nekk loo bëgg lu waay di jëfandikoo noo ko bëggee dañu lay wax ñam yaa ngi nii wii a ngi nii wii a ngi nii wii a ngi nii tegal tegal tegal yow boo bëgg yow a ciy jël li nga soxla nit ñi sax mën naa am ñu ci bari li li ñu doon jël ci bu doon wenn ñam mënatuñu ko ndax xamoo fooy jaar kon wax dëgg yàlla moom itam sëriñ bi nee sant na ko di leen ko seedeel yéen ñi nga xam ni yéenay ay bokkam ñi nga xam ne ñoom la àndal nag jërul mu leen ko seedeel ndax ñoom ñëpp kenn ku ci nekk am nga sa cantuk bopp goo xam ne ñii wax nañ ko xay na ñii jëgsee guñu ci moom waaye ñëpp maase nañ ci sant ko ndax ab taxawaayam dafa mat rafet mu yit koo xam ni e, wax dëgg yàlla ab ak bëggam ci sëriñ bi ak waxam ci sëriñ bi ak cofeel gu mu am ci sëriñ bi ak it nag muy doon koo xam ni lépp am na maanaam doylu ci sëriñ bi doylu goo xam ni toll na ni day wax ni lépp lu ma mas a tàllal samay loxo fi moom ñëw ni ko man lii sama yitte la demuma ci nit mu may gasalu reen wala may jëm ci nit mu may fasal ak fas tàllal naa samay loxo daal sëriñ Cheikh mu ñaanal ma teg naa ca sama bët bu dee lu ma bëgg moom moom naa ko bu dee lu may xëccoo it jot naa ci mu ngi nii toog te moo ma ko waxee nii kon moom it dafa mel ni cant yi dafa daje ndax sant nañu ko waaye nag ki wax ni sant naa ko moom moom mi wax ni oh, mësuma am mbégte mu toll ni mii ma am tey wax dëgg yàlla googu cant cant gu ne moo ko kawe tey tey jii moom ak cant kawe yépp waaye nag na nga xam ni sëriñ bi sant na la te di la xamal ni itam waaju baax lu muy man bu fi nekkee bu fi jóge ba gisatoo ko ci la koy gën a man ndax sunu jataay bii ku baax sëriñ Abdou Khoudous euh, sëriñ basiir moom sëriñ Abdou Khoudous danoo wax ni ci jamono yii fi sëriñ bi bàyyi ko rek dafa wax ni lépp lu ngeen def ci moom na ngeen ko xool ndax ñoom dañuy am fukki bët ak benn diirum ñuy nekk àdduna benn la ñuy xoole waaye bu ñu la làqoo ba gisatoo leen fukk ak benn yépp la ñuy xoole kon loo leen di defal teg nañ ci bët waaye defe naa ni teraanga ji nga teral njabootam gii di ay doomam sëriñ Abdou ne ci bopp bi muy ay rakkam di ay sëtam di ay taalibeem di bokki jullit yeneen yi nga xam ne ci yeneen tarixa sax la nekk ñoom ñëpp ñu maase itam ci ne lii dajale woo rek ba sëriñ bi ñëw nga sant ko def ko waaye ñu bari bi ñuy wax dañoo wax ni moom day lépp lu mu am bokk na ko waa dëkk beeg waa tund wi ak yeneen jullit sax yoo xam ni bo dëkk wuñ ci dëkk bi wala dëkk ci tund bi am nañ ci ay seede yu bari dégg nañ fii itam lu baree bari biñ ñëwee léegi ndax gan moom déglu dégg ma ne su ko ko aaye ak xool gis du la wax dara nag waaye mën nay déglu mën nay dégg kon cant googu itam na nga xam ne sëriñ bi li ko ci dàqal bokk na ci ndax am na mbokkum taalibe démb bi mu koy sant lu mel nii daf ko wax ne ko na nga góorgóorlu ci bul tàngamlu ab jullit ci loo man ndax man am na koo xam ne man dama ni man xawma ko woon sax waaye man bi ma ko gisee ak moom dalli bot yi ngeen di sol sax moom la sol dafa mel ni far kër gi moo doon njiitul daayira bi moom mel na ni ci ni mu doon doxee ci sëriñ bi daal doxewu ci woon sagoom aye eh? xam nga ki jegew tàngoor aw tàngoor dañuy wax ne ku la ko gën a jege moo la koy gën a yëg ñaare booba la la nga yëg ci sëriñ bi ba tax taxawaay boobee nga taxaw ko ca man naa am ñu bari xam nañ ko mën naa amit ñu bari réere nañ ko waaye yow sa bopp moom umpale woo ko waaye kon sëriñ bi nee na mi ngi lay sant bu baax te di la xamal ni lu ñuy sant ni rek sante na la ko ndax lislaam lay dox lislaam la séq ak yow lislaam la séq ak bokki jullit yi lislaam la séq ak waa tund wi te loolee bi mu ñëwee dañ koo wax ni ko lépp loo ci man tàngam lu woo ci dara kon nag li yàlla daf mu dugg sa loxo yal na la yàlla defal ndam ba ñe baree bare bare xettali ko ci ci yow ndax nit ñi mënuñoo ñàkk ku leen lëggéeyal sëriñ Abdou mii day wax ni Sénégal soxla nañu ko lëggéeyal am na ñoo xam ne nii ñoom ñanga ca xëy na am na ñoo xam ne néewuñu ci waaye am na ñoo xam ne ñanga ca yow nag jàpp na ne xam naa ne ñaa ci ña ne ci nga bokk ndax li tax mooy ah, dañoo wax ni ab maire yi nga yor kon dëkk bi nga koy yoral ak ñi ci ñi ci ñi ci aju ñoom bu ñu waxee ñoom ñëpp ni li nga li taxoon ñu fal la lépp yaa nga ca kon ñi tax ñu ñi nga xam ne ñooy liggéey réew mi kon ci nga bokk kon nag yàlla na ci yàlla defal ndam loo xam ni loolu képp ku ko daan jiite ndam lu ci mas am yàlla na ko ci am te mu ànd nag ak jàmm ak tawféex ak barke. waaw ndax loolu xëy na sëriñ bi moom mooy ñaan waaye nag dafa bokk ci sant yim la sante na nga xam ne sëriñ bi nag dafa mënta weesu la sant la fii sant na it njaboot gi. ndax sa njaboot it nag loo logor góorgóorlu bu njaboot gi wul woon taxawule la am na loo xam ne mënta mat ndax soxna yi biñ fi ñëwee ba léegi kenn ku ci nekk fa mu taxaw yaa ko gën a gisal sa bopp waaye gan it gis nañ ko ndax waxuma li ñu liggéey yiñ teraanga yi waaye ni ñu koy joxee ci boppam moo jëkk di ku ñu ko jox bala bala nga caa def dara sa xol dana sedd ba lu ëpp ci li nga doon bëgg a loola rek sax man man man na diggal sa biir kon ñoom it sëriñ baa ngi leen sant seen cantuk bopp tey ñaan yàlla defal leen barke ci seenu njaboot defal leen barke tam ci seeni bokk yépp dafay ñaan daal xol bu sedd bi mu am képp koo xam ne xam na leen walla ngeen xam ko wala mu gis leen walla ngeen gis ko suñu boroom xettali ko ci loolu nag suñu borom mën na ko kon mbir mi yaatu na lool rey na li ci nekk nag mooy dañoo toll fii moo tax ñu taxawee nii ci yow te yewet nga taxawe nii tam ci sëriñ bi taxawee nii ci bokki taalibe yi kon nag li la sëriñ bi wax nee na nga jottali ko itam kilifa yi fii teew ndax ay mag a ngi fi yoo xam ne nii guddi na te ba ba ñu déggee ni sëriñ baa ngi fi ba léegi dagg nañu seen i yitte ay boroomi yittee ngi fi ay boroomi soxlaa ngi fi ay nit a ngi fi yoo xam ne nii doggoon nañu ay coono yoo xam ne ñëw sëriñ bi rek moo tax kon ñoom ñëpp kenn ku ci nekk na nga ko ci jox wàllam mooy cant goo xam ni daal ak cant mënu ko féete kaw ndax sant rek la sëriñ bi wax ne ña def ko sant nag yàlla ci boppam moo wax ne ku ko def ñu dolli la sëriñ bi dafa wax ne ku santul nit it doo sant yàlla kon teraanga ji am na seen diggante yow li la sëriñ bi defal loo ca mën a def itam day mel ni da jàpp ni jotoo ko waaye ñoom li ñu xool mooy ñoom itam teraanga ji nga leen teral dañuy jàpp ni jenn teraanga féetewu ci ko kaw kon diggante boobu yàlla na yàgg yàlla na ko yàlla def ci diggante ya gën a barkeel xam naa ne man li ñu sëriñ bi di jottali loo maa desee mën a jottali su waxaloon boppam xam naa baat bu mu wax ma wax ko ci lay gën a mate ci mu wax ma ni ma lii ak li ak lii wax ko ndax mën naa moom lu ma fàtte waaye bu ma noppee su ci amee loo xam ne manqué na moom dina ko mottali waaye daal sant na ndaw ñi sant na mag ñi sant na góor ñi sant na jigéen ñi mu xër gu mu xër ci mbir mi waxoon naa ko ci rajo bi moo tax ba tey soxna Ndike ñëw bokk si ci mbir mii defe naa ne léegi la fi bàyyi moom itam xam nga ne mu ngi ci ay xat-xat ndax soxna abi mii fi bàyyi ko kenn la woon ci moom te léegi la koy wax ne ba fi mu ne nii ñu ngi koy téléphoné ndax bëggul woon a tàggoo ndax bu tàggoo woon it duñu ko mën a bàyyi ndax gan ñi fay ñëw mu ñu ànd ak sëriñ bàyyi daa Mbàkke ñoom ak sëriñ ab Abdou euh, Ndaw ñoom ak sëriñ Abdou Diop. muy délégation boo xam ne ñaari oto lañu ñu woon jóge Daaru Muxti ñëw fii la taxan sëriñ bi defan ko it mooy won la ni rek sant nañ kon nag sant nañ yow it yàlla na nga sant li ci des nag sëriñ bi moo koy mottali wala kum ko mottali loo hmm? waaw sëriñ Saliou Sow mii lay wax moom bërki démb bi ñu demee Thiès sëriñ Abdou yàlla dafa def mu baax waaye mu am nit ñu baax mi ngi ni toog këram lañu ñu jullee timis mbooloo lañu ñu won bi ñu fa ñëwee fekkuñu ko fa fekkuñu fa soxna sa xoolal loolu sëriñ abdu bi mu ñëwee ci kër gi fekku ko fi fekku fa soxna si waaye dafa ubbi lu kër gi ñu ubbi fépp ñu waaj julli timis toog ba dallu ba nga xam bi ñu demee bay war a dem la soxna si di doore ñëw moom fekk moom mi ngi woon si yeneen liggéey te moom itam sëriñ bi seedeel ko seede su rafet soo xam ni ba mu dajee soxna sa sax ci bunt bi soxna si géejoo na ba tàyyi xam naa ne ak mitit ba tàyyi ndax tee ngeen a toogaat ma kii ndax dafa am rek man lu ma doon kii damaa daw sax ñëw moom moo ko woon ni ko na nga gaaw lu gaaw gaaw sëriñ Abdou na nga ko fa fekk tey jii itam mu fekk ko fi nekkoon ci ay yitte mu ne ko kon da ngay yendoog man fanaan man ba suba nga door a continuer dem ci li ngay dem te itam muy boroom mi yitte yoo xam ni ci ab liggéey la nekk tey nag feet la moom moom boppam waaye xëy na mën naa am bëggoon na dajeeg sëriñ bi ci lii itam tax mu dagg yitteem yooyu kon kooku itam eh, sëriñ Ablaye am na àq moom itam xam naa ne teeru nga ko dalal nga ko xolam sedd na waaye sëriñ bi nee na sant na ko moom itam nun bokki taalibe yépp itam nu xam ko ndax nun kër sëriñ Cheikh Khady képp koo xam ne nii defal nga leen teraanga nag sëriñ si ñoom ñoo la war a sant waaye nun bokki taalibe yi nag nun noo war a jéem fay teraanga jooji kon nag moom itam ku ñu jàpp la ku ñu sant la ku sëriñ bi jàpp la ak rakkam yi te sant ko ku doomi sëriñ bi jàpp la te sant ko kon xam naa ma daaneel sama kàddu rek boo ma mayee benn minute rek ma daaneel ci sëriñ Saliou Sow mi kon yow it sëriñ bi nee na li nga nekk di ci yëngu yal na la ci jàmm fekk nga fekk ci jàmm xëy na mbirum àdduna nag kenn mënu koo topp ba mu jeex waaye nee na mu ngi nekk ci sa loxo yàlla na ci nekk ak jàmm bis bu demee ba di génn sa loxo la ko ciy génne yàlla na doon loo xam ni moo la gënal lii dangay wax ni lii moom xeeb naa ko moom leneen lii ma am moom ma ko gënal kon naa jàll ca lee nee na kon yàlla na lee ko yàlla defal yow sëriñ Ablaay defal ko kilifa yi nee na dafa bëgg ginnaaw man mi muy jottali lee mën naa am xàmmewu ma ñëpp moom mii mën naa am du xàmmee ñëpp yow nga yor cant gi kenn ku ñëw ku ñëwul fii itam bu ëllëgee keneen ku ñëw nga xam ni sëriñ moom sant nañ ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi ay kilifa yu diine ni moom sant na leen te itam li ko ci gën a neex mooy ñu ci bari dañoo wax ne yow ñëpp ngay taxaw ndax sëriñ bi fu mu dem loolu la fay digle sëriñ Cheikh Khady noonu la doon doxe moom li mu xamoon rek mooy koo mën a wax mu ne ah day jaamu dañuy jaamu yàlla dong de koo wax naa nga mu ne dañuy jaamu yàlla dong moom ku xas dib jullit rek loo wax mu ne day jaamu yàlla rek. kon nak momi itam ci tank yoy lay dox serigne saliw serigne bi sant na la serigne Ablaye serigne bi sant na la yena bokku tiranga ji yàlla nanu ko bokke tewe ni ci sëriñ kër kanam serigne Cheikh Khady mu nek suñuy ndam ñun ñëpp ak kep ku ko fekke kep ku ko deg te serigne bi tam ñu ñaanal ko mok rakam yi sama borom yagal len fi te weral len bari wut lo am ci ni mu amé ci ñom ci kilifa gu fi jóge ndax ñom ñëpp ñi ngi ni ñoom ñëpp kenn ku leen xàmmee rek ñu ngi nii toog ñoom ñëpp topp ci ginnaaw te it waxoon naa ko ci rajo bi moom mi moo ko waxal boppam nee na cër bi ñu ma jox mënatuñu cee dolli dara lu dul ma toog fii ñu toog ci suuf ni ma yaway bàyyi Cheikh Khady ne loolu lañ ci mën a dolli ndax cër bu nit doon joxe ci kilifteef joxoon nañ ma ko ba fi sëriñ bii ne bi fi sëriñ bi nekkee na nga xam ne mën nañ ne yaway sunu way jur léegi yaway sëriñ Cheikh Khady nee na baat boobu rek lañ ciy dolli baat bay nee na dañ ko ciy dolli ma dégg ko waaye mënatuñ maa jox beneen kilifteef lu loolu momit nak jox na len bopam ndax ndax leral la lol rek daana li sama kaddu yoon wi bi nu koy jog di dem dafa wax ne da ngeen ngeen ko def manam nan and def ko set len nuñ koy def ak bes buñuy départ mom waxtaan wa sax ñëwu ci dañu ko tëralal programme bam yegg mu ne programme bu ngeen def nak ci lay wey ba fim ne ni calendrier bi ñu yor ni ko tëralee sa buñ ko ne fi li la rek auto baa ngi nii rek la ci am mom kon nak nañ ko ñaanal. nii mu àndeek rakkab yii di wéy ba faw nii mu àndeek taalibeem yii di wéy ba faw ndax moom dana ñaan waaye soxla na ñaan gi itam rakk yi soxla nañ ñaan gi yi soxla nañ ñaan yi sët seeni doom soxla nañ ñaan gi kon foofu rek laa doon yemale sama kàddu sëriñ bi bu fekkee ni dafa dafa ëpp bu fekkee ni dafa ëpp nga wàññi ko bu fekkee dafa manqué itam loo ci dolli kon asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu kon Euh, soxna Codou sëriñ bi nee na yooyu tam beral nañ la sag cant ah, xam naa ni euh, sant nañ ca biir kii waaye nag du tee sa goog bopp itam ñu beral la ko ndax war naa am jàpp na ne noonu jàpp nañ ko kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf. dëgg la waaye kenn kenn du borom daaru kenn du borom daaru euh, noo njëkkee di wax ne ñoo ngi musu ci seytaane di uh, yëkkati ay kàddu ci turu suñu borom bu tedd bi bisimillahi rahmaani rahim di wax allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim waaye nag di wax jërëjëfe borom Touba jërëjëfe maam Thierno di wax it ne képp koo xam ne yaa ngi dégg suñu kàddu yi ñu yëkkati nii na nga ànd ak ñun sant lañu yàlla ci Baye Cheikh Khady santal ñu bàyyi Cheikh Khady ñaanalal ñu bàyyi Cheikh Khady foo mu nekk ca barzak rasulullah di wéttali ko maam Thierno ak i bokkam eh, yàlla na yàlla dolli ko tawféex dolli ko ak leer tey mayam ak tey mayam di xaw xel di baawaan ci Sénégal ak àdduna bi yépp noo ngi fii ci Touba Kaffrine ci kër goo xam ne nii sama wayjur mi ko fàkk foofu fii fii la ma juree ay wéjuram it ay taalibi lañu woon sama néeg ndey it ñëpp ay taalibi lañu jotaay bii fi am xam naa ne dina ko neex waaye ëtt bi ñu toog toog fekk njabootu Daaru Muxti rawatina ay leeri Baay Cheikh Khady ñëpp maase di ay taalibe wala boog sax di ay jaam di jaamu boroom daaru di sàkku bànneexu suñ borom te jaarale ko ci ay nangu dogalami moom mi dogal tey ñun ñëpp suñu kilifa ci kër Baye Cheikh di sëriñ Abdou Abdourahmane Mbacké noo ngi koy ñaan yàlla wér ak yàgg fi lool te yéenay Baye Cheikh dal ko te dëkk ak moom ilaa yawmi abadan ay rakamit bur yàlla sàmm leen aar leen musal leen te xéewalal leen lu ñu liggéeyale borom daaru lu ñu mottale yéene Baay Cheikh waaye lu ñu defee seen yéene it ba mat sëkk noo ngi di yóbbante wala di wax di jël seede doomu aadama yi lépp lu yàlla sàkk jaww ji di fësal suñu yéene ak suñuy ñaan ñeel njabootu borom daaru gépp waaye nag jiital ci bopp ba sëriñ Abbas Mbacke borom Daaru Muxti di ñaan yàlla jotaayam bii yàlla na yàgg tam jëf ba matal fii ñu nekk nag kookii ma tudd léegi doon rakk doon taalibe doon jëwriñ ci Baay Cheikh Adi di sëñ Abbas miinoon na ëtt bii lool la taxoon it mu sawar fee ñëw du lenn lu dul xeeñtu gum fi doon xeeñtu Baay Cheikh Khary gannaaw bu mu xamee ne bur yàlla boole nañu ak njabootam ñu soppal ñu seen bopp teg ñu benn bët bi am yéene ci ñun la jaar nemmeekoon teg ñun saafoon teg ñun ker ba ko defee ba ñëw fekk fi nataal boo xam ne nii day mel ni jëmi Baay Cheikh Khary keroog la ne fu ma mënti dem ci àdduna day fii fu ñëw fu may gis lii ma fi gis daal moo ma gënal mosu fee romb dem ci tool yi te jaaro fi mosu fee wàññeeku ci tool yi te jaaru fi moo xam ñi nekk ci dëkk bi ak ñàkk fe nekk àgg na sax ba ci tànkam tedd yooyu mu yëkkati ko dox dem ba ci rajo Kaffrine toog ci studio ba di wax ngir mottali yéene yi ba Cheikh kon nag noo ngi koy ziar moog njabootu ba borom daaru yëpp di leen ñaanal yàlla wér ak xéwal yu sax dàkk. fi ñu nekk nag daraay àdduna feeñu fi daraay àdduna dajalewuñu fi du wàllu politique du xew-xewi jamono yoo xam ne nii dafa aju ci yi sànq doomu aadama ci àdduna yàlla yenent bi sëriñ tubaa borom daaru bàyyi si xel yi rek munuñ koo weesu te ñu yalla yit yees ko ak taalibe dong mo ñu fi dajale nu nak buñu sante sant julli jënt bi sant sëriñ Abdourahman ak ay rakam ak ñimu andal ñëpp sunu xel dalna ndax seen ñew bi ñaan gu ba nu am ci ndigal and ci teural ko di wër rew mi dekk buñ dem ñoo ngay ñaanal waa dëkk boobee yàlla nañ leen fa fekk ñu nekk ci jàmm yàlla nañ ñu tal lépp lu ñu aajowoo yàlla na yomb te yemb kon nag bu ñu yegsee ba gis ñu gis leen rek ñaan nga nangu na ak la ca nekk lépp li waxul ak li wax kon nag ngeen xam ne suñu xel dal na suñu yaakaar feddaliku na te lii nga xam ne nag moom lañ ci bëgg a yokk mooy man de mën naa kitaabu ne boo kitaaru moxti wala ñu gëm borom daaru yëpp te am na fii tey ñoo xam ne nii seen teewaay fii nii dara waral ko lu may yëg gu ñu yëg borom daaru ci ñii fi ñëw am na ñoo xam ne nii ci daaray Baye Cheikh la nekkoon te ku leen gis mën ngaa yaakaar ne sax ñook moom ñoo war a yemi at ci melokaan xamee wuñ leen fi lu dul jàngal ak taxaw taalibe yi rek du ñàkk am ci ñoom ñu yëkkati baat am na fi ñoo xam ne nii ay tuut tànk lañu dunduñu yëguñu bëgguñu lu dul borom daaru yëg gu ñu yëg ne sëñ baa ngi ak njaboot gi rek ñu ñëw fii toog ñu ngi fii toog wa maa shahid naa ilaa bimaa naa ah kon nag su fekkee ne daje nañu fii ñun mën nañoo wax ne waa daaru Muxti ak ñi nga xam daan nañ dégg Baay Cheikh yaakaar naa ne su fekkee ne lam saf kooku ma jox xam man de mën naa wax ne ñoom de ñu bari ëmpul nañ Baay Cheikh yi dëkk bii di Kaffrine am na koo xam ne ni daf ma doon dimbali ci këriñ gu ma daan indi foofee ndax sëñ bi dañ maa waxoon ne léeg-léeg dafay am gub sedd xam nga ne dagg këriñ moom eaux et forêt dañ koy faral di tere mu am koo xam ne adjudant la adjudant nekkoon chef secteur waxuma la mu jiitee région bi de chef secteur commune bi département bi mu naan ma yombalal mbir mi ba benn bés ma kalaame ko Baye Cheikh ne ko kooku dee ku baax dama bëgg nga mu ne ma yaay numéro ma naa ma ne ma teg nga ko woo jox ma ko ma dégg ko ma woo ba Baba Sarr jox ko Baye Cheikh Baye Cheikh ñaanal ko ni ne ko yàlla nga élif ba élif képp ko la mos a élif ci Eaux et teguñ ci weer Baba saar ñu jëlee ko Kaffrine ji def ko muy directeur général Eaux et Forêts ne am grade bu teguñ ci weer laa wax xoolal adjudant bu ñu xëyee xëyee def la colonel mi ngi dund ay mbokkam a ngi may dégg Kaffrine gii mu nekkoon it ñu may dégg fii ko nekk directeur général man mi di wax yeen amna at mo xamni ni dama koy wax tuumaalu ma mako dama sant dama koy sant la yalla tay sant yalla ci lolé tiitoon naa sama bopp ci feebaru bir bo xamni ni 2007 fayna ci defe 38 millions ci Belgique docteur bama don set seet won ah mom de bo demé nga set sa bop beugal sa njabot melna ni tabaarkalla melna ni dal juróom benni weer do ko defati aduna <laughs> bind ko sax la defoon bind ko maa ngi nii te booba nekk woon maire 2007 <laughs> laa wax 2009 ba may doon maire ma ne 2009 ba may doon maire it ba mu méttee jaaxle lool am na ñu bëggoon ma bàyyi ko ndax 2002 Abdou Diouf ma ne woon bàyyil maire bii yéen a gañe waaye bàyyi ko te dese yaakaar ji Abdou Diouf 2009. ñu dëgmal ko am ci yaakaar lool bëgg ko nag façon yéen liggéeyal Kaffrine am na ñu doon fexe sax ma bàyyi pour soxna si fi mu ko doon xëccool yor ko ma ne leen kenn rek moo wax bàyyi ko ci àdduna ma bàyyi ko de bàyyi Cheikh Khady ñooñu bañ xamee fi mu ma teg ak li ma yéene sañuñu ko woo wax ndax daa mosa wax ne su fekkente ne bëgg naa ko. te gëm ko te fas ci yéene liggéeyal Kaffrine rek naa ko wut su ma ko jot naa ko am amin mu rafet ba jamono ji lëjë it maa ngi koy wax di ko santal yàlla di sant yàlla tuumaalu ma ko lu mat ñaari minute ñetti minute bi mënta weesu te bàyyi Cheikh woowut ma mbala ma woo ko mu ne ma foo ci toll ndax borom daaru def na la ma na ma ci yaw maa ngi koy sant bu baax ak leneen ak leneen nag loo xam ne nii xaj na mu ne su koo wax lépp ndax day niroog ngis tën wala mu niroog bokkaale waaye akasu rek bokkaale Baye Cheikh sañ na ñoo wax ne walliyu kaamil la li ñuy wax nag du mbiri baatin dañuy wax li tubaab di wax connaissance empirique maanaam dañoo seetlu rek xana xam ngeen ne général mooy remplacer général colonel mooy remplacer colonel gouverneur mooy remplacer gouverneur préfet mooy remplacer préfet bi Serigne Touba gisee ñëpp kam wóolu woon dénk ko doylo ko nawlo ko mooy mam Thierno tigga tojul géej gi daba deul njabot gi sanku yaakaar tasul mam Thierno momé mënees na wax ni nawlem Serigne Touba la ci may yalla waaye taalib Sëriñ Tuubaa defoon boppam loolu nag bëri na ci biir wàllu maam Thierno moomee ku toog toogaayam boo dul maam Thierno it nawle maam Thierno ka la ca des nag am xel te mënu ko tënk ku toog toogaayu kenn ki boo dul kenn ki it mel ni kenn ki du dëkk te it li may wax nii. at mañ xamanteeg moom lam ñu waxoon Serigne Abdou mii kaar kaar yàlla na ko yàlla cat dal na suñu xel daa waxoon ne moom de xamul leen waaye comme xam ne wóolarante nga ak Serigne Abdou te muy dëgg ci yow ten ak ak naxi newut ci yow ak tappale nekku ci yow xelam dal na ci yow lolou mom baye jax ko wax ma deg ta lolou it defena nek seigne bass amna am lu mu ma ci wax yalla fi yàgg te wer ah man dal xamna ne samay bokk ngi ni tok samay nek ndey samay nek baye samay rak ngi ni tok sama soxna mag ngi ni tok li meuna wax lepp bari na waye xam olof tukulo dañu neex te olof koy bamtu xam lepp wax lepp yak lepp waaye ku am seetlu rek laa wax ma ne seetlu bi yàlla dogalee ci Baye Cheikh la ko neex ak nam amee nga xool lépp lu ñu yaakaar ne daraa nga ca wala am nañ as tuut ci si borom nañ doxalee diggante seen digganteeg daaru ba roo loola roogalaat mu nekk feeñ seen digganteek Touba nga war a xam ne am na lu xew jëriñ mi ngay wax léegi gërëm nga waa kër Sëriñ Basiru yaa wax dëgg sëriñ tubaa du bi buntu yem ci kenn di ko fa jéggi di seet keneen te ay jagleem ak ay mayam ak ni mu mbir mi moo tax nga waxee noonu waaye maa ci xam dara man mii ba ma bàyyi Cheikh di wax na man teegaa gaaw mii leen teg bu baax sëñ de bu dul sëriñ tubaa it bu sëriñ tubaa doon wàcc ci jëmm ci njabootam ko jur amaana du may jëmmam joojee ndax da amib cër ci suñu borom bu wéso li doon doomi serigne Basiru ta lolé kat ak ngoon yalla wone la mak serigne Abdou ki ma dem di ko ci ma nga wax ci radio ñu may dégg te fii Touba na war fi ay fi tok doom xam demul fenn lajur len lijeenti lijjantiwul len ñak jëriñu rek liggéey jaamu yalla jàngale. ay yooni yon ma tok serigne Abdou Hakim mok baye Cheikh ñiy téléphone ci sama portable bi kon nag soo ñëwee ba fii sëriñ Abdou def lu ay ñaan ñeel sëriñ Bassirou ñeel sëriñ Moustapha Bassirou ñeel sëriñ Abdou ak kii ma ki bokkam sëriñ Moustapha sëriñ Moussa Gagne ak njaboot googu yëpp ba noppi yóbbante nuyoo sàkku ay ñaan ñeel sëriñ Mountakha ak njaboot gi sëriñ mun sëriñ Abdou sëriñ daal def na li ko war ndax daa xam limu daa xam kimu te it ñi mu àndal duñu ko jey ñu ko jañax waaw kon nag yal na yàlla fa leen cat dafay waaj a guddi suuf day waaj a sedd moo tax ñu waxee nii rek gàttale ko fii waaye gannaaw bu ñu leen bàyyee ngeen continuer ci seen programme yéen waa rajo Darou Mouhty waxtaan wi dana wéy fii nga may ma nag ma jox ñaari bokki taalibe rek koo xam ne nii magum taalibe la te fii de kuñ fi am yéene ci moom. ci talibé yi mom lañuy wax mu taxaw ko bari na fi ño xamné ni buñ fi jé ko mom lañuy wax mu taxaw ko ma ngi siaré sëñ Modou mbacké mi ngi tok euh waye mu may man diga rek ma jox Baye Cheikh Siñaan mu am lum ci sann ci kaddu ndax euh ku xamante tek njabootu Baye Cheikh lañu ah tawarkalla jërëjëf. ok ok ok daan loxo ñaan da nangu ñaan na yene yeb dugg. amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi jërëjëf jërëjëf tarkalla jërëjëf tarkalla ah Baye Cheikh. dañu ko ma yóbbante bi. waaw ëllëg incha allah. waaw incha allah danaa ci jublu incha allah ëllëg. Bakke Balla.